asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu moo ngi nuyu mbokk yi yépp ci ñi ci jiital kilifa yi di di sëriñ Mouhamadul Mahbub kilifa kër gi ak sëriñ Cheikh Abdou ak mbokk yépp yëpp ñu ko waxee ci tuuru kon njabootuk sëriñ Touba gi fi teew te bis bi ñu jagleel ko njabootuk sëriñ Touba gu jigéen gi nga xam ne kenn kuñ ko ci tudd rek mel na ne tudde nañ ko ñëpp ndax ñoom ñoom ñëpp benn lañ kon ci seen tur ñoom ñëpp tàmbalee ko nag ki gën a jege nga xam ne moom lañ ko tudde tey di soxna Faati Mbakke bu Buyo bokk ci waa sëriñ bi kon bala ñoo balaa sëñ Basiiroo jël di àggale li jëm ci soxna seeg li ci aju ci turu ndax kër soxna Faty mooy kër soxna Faty mooy kër soxna Astou Gawane mooy kër soxna moom mooy kër soxna May Kubra mooy kër soxna Mumina mooy kër sañ tubaa gépp kon noo ngi sant bu baax sëriñ Modou Mahfouz ak sëriñ Cheikh Abdou ak mboolem njabootu soxna may Maymuna ci cir bi nga xam ne buñ ko tuddee wutoon njabootu sëñ Tuubaa buñ tuddoon kenn itam di bisub soxna May rek bisub ñoom ñëpp la mm. di sant sëriñ bu Bousso ci waxtaani moo ak sëñ Moustapha Diop mi ko doon idaara tam bu bu li ci li ci gën a yéy mooy tam bi daa tàmbare moom tam bu tàmbare la mooy tam boo xam ne mën ngaa tàmbalee mën nga ko tàmbalee dund ci guddi yi xam nga dee temu bu mel ne bu sëñ jiili ba ma majaalis bi moom internet nga xam ne day aajo boo amul connexion jënd connecté biti gi tëjee nga bàyyi ba suba waaye bii moom ay teggin mën ngaa jóg léegi jëm ci bu dee wax bismillah booy jóg fi nga toog mën nga wax bismillah tàmbali ko nday booy sol say dàll mën nga tàmbale nday jëw ko léegi te ñaar yooyu sëñ wax na ci téere bi ne ñaar yu sëriñ Touba fonkoon la wax na euh, am na ci taalibe yi koo xam ne daa xamutoon aadaam andi aw ñam te waxul bismillah sëñ bi ne lu ngeen dañ di ma indil yoo xam ne moom medd ñoo yem ci man ne ko lu ñu waxul bismillah moom laa yemale mu ne am na bis ku ñu wax Mouhamad Fall yóbbante ko addiya ji sëñ Tuubaa fekk nee na mbubb yi ñu daa sol booba poos yi day féete càmmoñ nee na ma dugal sama loxo bi ma ko jubee ma dugal sama loxo nee mu xool ma gëdd ma ne ma noonu la nee na ma daal di gaaw awale ko sama ndayjoor day ñëw jox ko ko moom la sëñ Tuubaa meloon ci wax bismillah ak nday ni ko ni ko ni ko ni bi fonke woon kon li nga di ci des yëpp nag seeti ko seeti mbokk ak nuyoo yooyu yëpp rek yuñ mën a daal di jóg jëm ci la comme thème bu thème bu thème bare la boo xam ne moom am na solo lool noo ngi sant bu baax ni ko sëñ Moustapha tëjee léegi ni mu joxe misaal ci sëriñ Mountakha li mu wax ne sama kilifa dama koy bàyyee sama bopp bàyyee ko boppam la la la lam ca teg moo am solo mooy wane na am na résultat ndax daf ne gisuma lu ma wàññi gisuma lu ma wàññi loolu nag kon misaal moo am solo noo ngi sant bu baax di gërëm ñëpp di sant sëriñ Cheikh bu baax ci taxawaay bi ak sëriñ Cheikh Awa Balla ñi mu ko seqal ñëpp di ñaan sunu borom dool lii ngërëm soxna Maymuna ak bokkam yëpp ci barkib sëñ wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmiddin mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara dina wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nuyoo bi ak siyaar bi nag ñu ciy jiital kon kilifa ak euh, béréb bii muy sëriñ Mouhamadou Mahfouz ak sëriñ Cheikh Abdou mi nga xamante ni moo fi toog jotaayu way mu bu tedd way muy soxna Mame Bousso ñaan suñu mu dolli ko ay dolli ay yokk ay leeram foofu mu nekk te taxawal ko ak njabootam ginnaawam te lépp lu si séentu liggéey bii mu daan liggéey di ko liggéeyal way juróom wu teddoo fekk ko fa ak yiw wu koy njortam di ñaan soxna si nga xamante ne mooy soxna Maymunatul Kubra soxna Maymuna Asura moo itam suñu borom yokk ay leeram fa mu nekk tax suñ ci barkeem te yokk ay ngërëmam ak Seexul Xadim di jot li kàddu goo xam nag maa koy teg ci ndigalul Sëriñ Mouhamadou mu nga xamante ni moo fi toog jotaayu soxna Faty Mbacké tey muy kàddu yi cant lool rek ak ngërëm ndax eh, dafa doon lu am solo ci àdduna bi muy lu mel ni jokkoo ak bokk ak bokk nag yëpp lañ gën a bëgg lañ bëgg ko jokkoo waaye rawatina bokk ki ñu bokk muy Serigne Touba kooku moom ku ne war naa taxaw ci noo ko jokkee fonk ko te di ko suuxat foo toll di sant bu baax sëriñ Fallu ñi nga xamante ne loolu dafa waxtaan wi mu waxtaane ay teggin te tënk ko tënk bu am lépp dugg ci biir waaye tomb yi mu bari lool te yaatu waaye ñu cuqati ci rek bu mujj bi moom bi mujj tudd wala boog bu fukkee beeg ñett te mooy jokk ak bokk bi mu wax ne sëriñ bi def ko limaan ci teggin hmm. mel ni kon ak bokk sunu borom moo ko jëkka digle ci alxuraan bëgg ñu fonk ko wax ni innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum delluwaat it wax ci mbokk gi xam xamante ne mooy mbokk bi deret gi ni ni inna jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu kon kooku mbokk mooy mbokk bi deret waaye mbokk dina gaa ngi ne mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci benn xadis moo tudd al muminu axul ni al ak morom ji dañoo mel ni ay mbokk yasuddu baaduhu baadan ñu koy wax dafa rabbali baaraam yi waleen daal ñu war a jàppalante dëgërante dëgërante bu baax a baax ci dundal mbokk boobu it ci dañu mën a dimbalante ci albirru wa taqwa wax ne al birri wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwaan kon ci suuxat mbokk boobu ci dañu mën a dundal yooyu yëpp nag bu dajee kon initiative yi nga xamante ni sëriñ jabootu na mu tudd yooyu jënd ak sëñ mooy jokk mbokk gi woo leen cërale leen di euh, lu am solo la def ni lu am solo loo xamante ni fa euh, waykat bi waxoon rek bakaytu sababatan bi sonda safaytu nafsa xabla tanaddumi walakin bakat qabli fa hayya lil bukaa bukaaha fa qultu al fadlu lil mutaqaddimi mel ni kon noonu jotaat def nañ ngeneel lu réeré loo xamante ni buñ doon xelu ay ati ati du leen maa dab ndax jiitu moom dëddu ay caaxaan te ñoo ko jiite luñ maa defet rek jéem a feebar lay doon ñoo ubbi bunt ba noppi loolu nekkoon ay cant la ñaan sa borom mu defal leen def na tawféex mel ni sëriñ Moussa nga xamante ne moo toog ci bopp njaboot gi nag euh, jiit boole waa Kassim Mouhamadou Mbacké mu jëloon ngeen ñëw nañ waa Kassim Abdou Karim ñëw nañ soxna Ami Seex ña ca aju ay njabootam ñu ngi fi ñëw tam ñëpp nag ñu jublu rek euh, indi rek wane seen cant ak seen gërëm ci lii mu doon lu am solo ndax dafa am benn xarit bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni dafa am malaayika mu yàlla yebal ci béréb mu taxaw fa dafa xaar ku fay jaar ba mu ñëwee mu laaj ko foo jëm mu ne ko barab sàngam ana loo fay wuti mu ne ko damay siyaare mu nekk fii mu ndax dafa am benn intérêt na ko ci yëpp mu ngi déedéet rek ngir jëm yàlla mu ne ko man ndaw laa jóge sa mu ngi lay xamal ne bëgg na la ngir li nga jóg di seeti nit ngir jëm kon ndekete jóg ngir sa mbokkum jullit ndekete cofeel yàlla ngi ci biir kon loolu kan nga ko may eh, sunu cant am tam ay def doom am ñu kay kanu may ñu mën ni ñokket jox ay jéego ngir dox si ak mbokk te fekkee ci fële yàlla mi ngi ci biir jóg di seet sa bopp am na tam ci moom waaye am fu kon eh, kaddu cant daal la mën a doon cant nag mënta yor cant na nag mu sant ñaan su boobu ko soxna si nga xamante ni moo taxawaloon bis bi su boobu yokk ay leer fu mu toll soxna Bali ñu ñaan su borom dolli ay leeram moo tax fa mu nekk te fekk ko ak yërmande te dajale ko ngërëm la mu doon sàkk ci moom di ñaan njaboot gii mu fi bàyyi it muy sëriñ Mouhamadou Mahfouz ak i njabootam di ñaan son sëriñ si Abdou ak ñun ay rakkam ñoom tam di leen suñu borom di leen dimbal di leen tefeex di leen muccal xiwal ci barke seen xarit jërë ngeen